waxtaan bi kum ngir dox tànk jàmm ca fitna guerre ba xam diggante Russie ak Ukraine moo tax njiiti réew mi Macky Sall fa nar dem ca Ukraine ak Russie fukki fan ak juróom benn jàpp fukki fan ak juróom lépp ngir waxtaanee fa jàmm ja indépendant yéen kaay moo ñu ko xamal waaye nekkul njiiti réew Macky Sall rek de moom ak juróomi président yu réewu Afrique bokk na ca njiiti réew bu Congo Brazzaville njiiti réew bu Égypte njiiti bu Sénégal njiiti réewu Afrique du Sud njiiti réewu Uganda ak njiiti réew bu Zambie waaye na di fàtt fàttali na njiit réew bu Sénégal moom juin 2022 demoon na Russie ak Ukraine waxtaan ak ñoom ngir ñu bàyyi wàllu céréale gi nga xam ne réew Afrique fañ koy dundee te biñ ko bloqué fa ñu ñoo andiloon loraange Le Soleil yéene kaay ne ay njiit réew yu Afrique fa ñoo xam mission fexe ba andi jàmm ca guerre ba xam diggante Russie ak Ukraine <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nàññi ja mooy ne réewu Afrique yi gis-gis bi seen doom yi am ci français yi ñaawlu seeni doxalin fay gën di bëri li tax dëgg-dëgg nag doomu réewu Afrique yu bëri waxuñ ci français yi dara Dakar Time mag ñu koy leeralal la mu leeral moom regard yéen kaay mooy ne étudiant yu université wu Ndakaaru fa ñoo lànk bañ kàndaaral ne duñ tàmbali njàng ma en ligne ci internet bi yi ni mel ba tey yéen kaay bi di ñu xamal ne Barthélemy Diaz fañ koo fal mu jiite mbootaayu dëkk yi gën a mag ci àdduna bi la dépêche yéen kaay moom di ñu xamal ne Serigne Sidi Abdou Ahad Mbacké fa yëkkati benn million waa groupe wal fajri ca seen télé bañ tëj 24 heures yéen a kaay na ko Déthié Fall tamit dem na wal fajri dimbale na leen moom fa jënd seen journal bu ñu jaayee 1000 francs 500 exemplaires juróomi téeméer la ca jënd lépp ngir jàppale leen wal fajri yéen a kaay moom fa xëy amal taxaw seetlu ci taxawaay bi nga xam ne taskatu xibaar yi nekk bitim réew tubaab yi amal nañ ko ci wasaare xibaar ak amal ay jàngat ci fitna ji amoon Sénégal ci weeru soin wi coowal nervi yeeg vidéo fi taxal yàq ko ci réew loolu yëpp daal taskatu xibaar yi nekk bitim réew fañ koy wane lu bari di ko jàllale a sëkkatal Sénégal ba tax yéene kaay bi na njiitëram Macky Sall li ko war fi mu toll ni fa bëri de yéene kaay bi na média yooyu nag fa ñuy préparer opinion bi de <laughs> leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne waaye yeewi askan wi fa ñoo jéebaana njiitëram Macky Sall ca mbootaayu xeet ya kalaame ko wala àq ak fu doomu aadama ñàkk ak liberté ak ñi nga xamante ne fañ leen na faat ci ñaxtu yi fi amoon loolu lépp fa ñooy sàkku ci mbootaayu xeet yi ñu yónnee ay ndaw fii Sénégal ngir amal enquête ndax yëf yi leer la leer enquête yéene kaay ba mu wax ñu ko mooy ne gis nga fitna ji amoon ci réew mi parquet bi fa ko bëgg a jël teg ko ci ndodd Ousmane Sonko ne li fi xew yëpp lu ji njàgg mooy njàgg takk der ak ña ngay dajale ay élément yuy firndeel li ni mel 24 heures yéen kaay moom fa xëy di ñu xamal na maître Doudou Ndoye fa wane yoon wi nga xam ne su fa njiit réew Macky Sall mën naa neenal daan yi nga xam ne lañ teg ci kaw Ousmane Sonko fañ koy raxas ba mu set su ko defee moo na bokk ci wate yi di ñëw yow seetal nee na bu njëkk bi njiit réew Macky Sall mën naa wax waa assemblée nationale na leen faa bëgg ngeen watel ma loi xam ne fa fiy jëlee délit bi ñuy wax corruption de la jeunesse ndax loolu daan yoo xam ne musuñ koo daan kenn génn ci Sénégal ca jamonoy tubaab ya colonial ya te daan la yoo xam ne la yàlla xam doy na kon mën nañ ko fay jëlee ñaareelu yoon bi tamit nee na su neexee njiitëram Macky Sall fay gracier Ousmane Sonko te li ni mel njiitëram Macky Sall defoon na ko fi koo xam ne fañ ko teg ay daan juróomi at ci wàllu trafiqué médicament après njiitëram mi gracier yoon wi nga xam ne suñ fa jaare fa ñuy régler problème Sonko yi ba mën a bokk ci wote yi ka bokk gouverneur fa xëy àddu ci diggante njiit réew Macky ak usmaan Sonko médiation ñoom ñaar ñu toog waxtaan ngir juboo ak jàmm ñu bëri joxe nañ ci seen xalaat donte xalaat yi fa wuute diggante Alioune Tine Alassane Ndao ak Babacar jonn seen xalaat yaa ngi ca biir yéene kaay ba <laughs> leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne teg loxo jàpp gi ñu jàpp ñi doon ñaxtoog toog ñi doon yàq fi mu toll nii fa takkar naa se bari gi mu bari nag fa tax l'observateur ne ñuy xeex àq ak yelleefu doomu aadama yi fa ñoo ragal kaso yi fa nar a fees ba rembat su boobaa seen xàq ak seen yelleef ñu ñu tëj kaso dootuñ ko mën a sàmm libération na ko te teg loxo gi jeex a gudde hee fi mu toll nii takk der yi ginnaaw bu ñu tegee loxo Cheikh Diouf bu Pastef ca ginnaaw raay terewuñ fa ñoo continuer ña ngay teg loxo di jàpp rek fa ñu nuus rek di jàpp rek di jàpp rek ña ñu jàpp ñëpp ñu ngi ca biir yéene kaay ba yéene kaay bi di témoin moom fa xëy di ñu tàggee Sidiya Ndiaye syndicaliste bu mag moo génn àdduna niki démb ba tax mboolem liggéeykatu Sénégal yi ñu ngi ci naqar ak tiis ndax taxawaayam bu rafet ci wetu liggéeykat yi taxawaay bu rafet ci wetu xale yi ngir ñu mën a lekk ba suur lekk gu baax bésu tey bii la ñu jagleel journée mondiale gi ñu jagleel xeex wàllu xiif bés bi yéen a kaay na réewum Sénégal nag juróomi xale yoo fi jël kenn ka lekkam baaxut de du suur wala la muy lekk baaxut te li ni mel fa leen di jural gàllankoor seen wér gi yaram ñi nar a am gàllankoor boo moytuut mooy borom kër yu bëri te ñàkk xaram tabaski moo leen ko nar a jural yow seetal turbine yéen a kaay ñu xamal na xaram tabaski fa fi mu toll nii ba jéggi dayoo xar yi daal ñu ngi tàmbalee deux ba deux aay ñu ne déete waayeti pompiteer fa yokk soble moom six la doon jar fi mu toll mu ngi ci douze mille ñaari junne ñeenti téeméer laa si moom di ñu xamal ne xam na benn libanais ak benn français ak benn sénéral ñu leen di tudd ci ab scandale tooxi doona looxóor vox populi moom di ñu xamal ne nawet bi fa tàmbali ni ki démb ca Tambacounda taw bu rëyee fa xam ba sax xab dënn fa faa rey ñaari nit ak koo xam ne ma nga ca diggante dund ak dee Parcelles Assainies fa xam benn agresseur fa faa agressé jam paaka benn paa bu doon romb rek waa koñ ba ay xale yu góor yu bëri dàqee agresseur ba ba jàpp ko fañ koo dóor ay móol ba ma nga ca diggante dund ak dee paa ba mu agressé nag ndeysaan fa mujj ñàkk bakkanam neen na tuuti ba ñàkk bakkanam nag te yaayam moo ko rey l'observateur moo ñu ko xamal ah. reetal benn jabaru moodu moodu benn xale bu góor fa koo fay ñeenti junne ngir tëdd ak moom jabaru moodu moodu ba nangu xànd xale bu góor ba waaye ba mu jógee nag fa caa jëlee hëmb xam nga nu mu defam fa bàyyi ba xam doom xoj doom ja rey ko ba mu dee lépp ngir bañ gàcce yëf yaa nga amee ca Tambacounda <laughs> waa ma ne gàcce ga ma nga tàmbalee ci jaay sa bopp ci ñeenti junne léegi gàcce gi kay fa yokk ca ba nga xamee doom rey ko